Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum euh, suñu mbokk sport comme niñ ko defee fële sànq ci euh, terrain ASC euh, Penc tey ñu ngi fii ASC li nga xam mooy ASC Jàmbaar muy la grande ASC bu Jàmbaar lu ñëw fii tey nag mooy li nga xam moom mooy match bi war a dox ci diggante moom ak dëkkandoom yële di ASC Penc samedi fële ci stade yaa mu nekk bi nga xam te tey géejawaay yëpp moom la xaara xaaraan tey bu nee derby géejawaay rek sa xel dem ci jàmbaar lakkale mu nekk benn match bi nga xam te ni tey waa géejawaay yëpp ñu ngi koy xaar fële samedi tey ci stade tey ñu ngi ñëw leen entraînement comme ni ñu ko defee sànq fële si terrain Lakale ñoom dégg nañ sànq li wax ñu waa Lakale tey fa ñëw ci ay ci pour xool aussi aussi ñoom naka la ñuy préparé seen match donc bu ñu ñëwee tuuti ci rappel ñu xam ne euh, kan mooy ASC jàmbaar fàttale na ASC la nga xam te ni mu ngi ko créé en 1974 mu nekk ASC bi nga xam moo gën a titré mooy euh, ci zone nañ sax ci département bu Guédiawaye bokk na ci ASC bi nga xam moom moo gën a parce que actuellement nii mën nañ jàpp ne ASC ki nga xam mooy ASC euh, jàmbaar am na euh, quinze fois li nga moom mooy euh, zonal 4 fois li nga xam moom mooy champion départemental une fois champion régional une fois li nga xam moom mooy champion national ak li nga xam 5 fois vice champion zonal une fois champion départemental bu euh, Guédiawaye donc ASC e boobu tey moom la ñuy certifié xool naka lay préparé sen li nga xam mooy match mënuñu terminer aussi def ci présentation bi bu ñu waxee ASC Jàmbaar seen xel yi dinañ dem ci ay jours yu mag yi nga xam te ne aussi marqué nañ ki nga xam moom mooy ASC Jàmbaar ku ci mel ne Kader Fall ki ci mel ne xam ne mooy feu Baba euh, Touré ki nga xam te ne mooy euh, feu Omar bu ndaw Bamba Denis euh, Lamine Koné Adolphe Diop Modou Peul Gana Camara ki nga xam aussi moom mooy Cheikh Gueye Pocho Bamba Dieng Modou Gueye Dora bay Jupiter ainsi de suite ay jours yi nga xam te ne tey bo waxee Jàmbaar rek sa xel day nekk ci ñoom donc ñu jox leen dans un instant ci li nga xam te moom mooy seen préparation xool naka la ñuy waaje seen derby jox seen diggante ñoom ak ki nga xam mooy ASC Lacale bu le coach Ngagne tax naa mu présenté ah parce que yaakaar naa ni visage sax di ku ñuy présenté ah parce que moom dafa nekk benn élément bu important ci match bi nga xam moo war a am euh, samedi parce que ne moom aussi moom moo nekkoon euh, entraîneur bi mooy équipe bi nga xam moom lay dajal muy euh, bi passé boobu fa jë nekk mu ñëw nekkaat ASC Jàmbaar donc xam naa dañu koy bàyyi mu présenté app ñëw ci question yi coach ñu lay nuyu ñoo lay fay laay comme d'habitude bon je me présente Ngagne Demba Gueye Euh, coach euh, quatre ans nga yore benn équipe muy ASC Penc. Mhm. ren nga yorewaat ko daje benn derby bi naka nga dundee match bi. waaw ah, mais comme ni ko ñëpp di dundee rek parce que man bon j'ai la chance nekk ci ñaari équipe yëpp et je sais que ni c'est un derby mais bon comme ni ma koy far di wax rek ça reste un match ah. et que bon dañ fexe ba këll le fair play xam nga gagner le match ah sinon rek du am amati benn njëriñ. Euh, parce que dama koy far wax ici bon ñaari tu vois des joueurs yoo xamante ni ils habitent à ba pare di jouer à à Penc tu vois aussi des joueurs yoo xamante ni il habite à Penc ba pare di jouer jàmbaar donc je pense que ne loolu rek day wane ni ñoo dëkk bon football nag mënul ñàkk rivalité mais comme ni waxee nañ fexe rek le fair play jël le dessus quoi waaye. donc nga dem ci équipe bi nga xam xam nga leen muy ASC Penc est-ce que loolu mën nga day da nga koy jouer waale. non je ne pense pas parce que déjà amoon na ay problème yu amoon ci commencement bi. mais dès l'instant ma yëg ko rek dama ne nañ ko arrêté te pour arrêté ko rek mooy que ñun ñu arrêté di fa entraîner parce que coow moom lu koy fay moo gën lu koy yokk je pense que ni ils ont suivi mon message ba arrêté di fa entraîner mais wax naa leen ko entre penc man personnellement je n'ai que des amis à penc ah sincèrement te ba ni nii ni je n'ai que de bonnes relations ak ñoom cest à aventure la rek bu bu ñu commencé woon et jeex na. Eh, moom métier ma permet par exemple di nekk entraîneur tey à à suba a Jàmbaar demain sax je peux revenir à Penc donc nañ fexe rek ba nga xamante ni dara du fi ñaaw parce que ça reste que moom dafay fédéré du yàq donc e je pense que ni on jouera un match exceptionnel ah il y aura du spectacle parce que je les connais bien c'est des c'est une équipe qui aime jouer alors que moo tax ma waajal samay joueurs ci loolu pour bien défendre ah pour ne pas avoir des regrets à la fin du match ñoom seen ko nga xam ne mooy seen euh, capitaine bi ñu ko laaje moom nee na xam na leen bu baax xam na façon bi ngay joué kon ñoom aussi dañ ci préparé wu naka ngay wax si loolu. ah bien bien sûr parce que bon ça ne veut pas dire que ni xam nañ li ñu gérer dañ koy changé donc am nañ une philosophie on restera xam nga jusqu'à la fin à notre philosophie. donc ça peut passer comme ça ne passer mais espérons que en tout ñun jàpp nañ ni dina jàll. c'est vrai ils ont raison mais dina am tuuti changement dama ko wax fii mais il y un petit changement par rapport ak lu ma doon def ak ñoom ak lu ma war a def samedi. est-ce que euh, xalaat nañ aussi coach ñëw ak premier li nga xam moom nga joué woon muy système bi nga joué woon ci phase prémace euh, bi muy 3-5-2 bi nga xam te ne gis nañ dafa xawoon compliqué trop ci côté joueur yi est-ce que yaakaar nañ normal parce que xam nga tout début est difficile donc je sais que ni sax jot c'est à nous de les préparer à ça par exemple ne def nga lii métti na rek dootu ko def les joueurs ne progressent pas te ñoom ñëpp dañu opter pour jouer en Ligue 1 te loolu la ñu fa wax quand vous optez de jouer dans un championnat plus élevé il faut ngeen di adapté wu ci ay schéma tactique leen entraîneur indi pourtant mënoon naa def lu yomb mënoon naa ñëw rek def un 4-3-3 un 4-4-2 mais c'est juste pour les préparer à l'avenir euh, penc nga yore leen yow lan nga a mën a gagner penc bon la possession du ballon parce que équipe la boo xamante ni il aime jouer te ñaari équipe bu mel noonu booy jouer moom da nga leen di jéem a njëkk ci loolu soo deful loolu wax naa leen ko si on ne fait pas ça rek on est mort on on doit tout faire pour les douter et pour les faire douter c'est à nous de garder le ballon ah et essayer de marquer en premier c'est ça la clé du match. ñu gis gis nañ ngay travailler sur euh, devant des est-ce que euh, dañu jàpp na tey coach dafa war a ñëw pour attaquer ki nga xam ne mooy équipe adverse. waaw parce que dafa bokk ci nos faiblesses. bon ak jàmbaar gis naa ni nos attaquants n'ont pas l'habitude d'être tout le temps devant le but moo tax euh, boo xoolee tey jeudi la normalement waroon nañ nekk ci leneen mais j'ai insisté à ce que ñu nekk devant le but. parce que benn dañu am ay difficultés on a on est dañu am ay difficultés déjà pour marquer des buts. donc suñu premier match wane na ko bien que on n'a pas trop d'occasion mais au moins on en avait une te on l'a raté donc c'est c'est la c'est la raison pour laquelle may insiste depuis une semaine sur le travail devant le but et je pense que ni dina am une amélioration samedi. donc euh, lan mooy sa dernier kaddu ak message bi nga xam moom nga koy passé à l'endroit des deux équipes yi nga xam te ne vraiment. li nga waxee sànq am nga fay relation ci ñaari équipes yi. mais c'est vrai la preuve les heures on m'a proposé de porter de de porter mais biñ ma waxee daf ni mais man su ma porté plainte contre X coow am fa ñu jàpp ay nit mais danaan coach la te je pense que ni man je préfère liy metti ñëw ci man que liy metti jóge ci man di dem ci ñoom te comme ni ma waxee rek à Penc je n'ai que de très bonnes relations là-bas commencer par le président ba ñu ci gën a suufee donc c'est pas parce que c'est le sport nag ah, bi ma nekkee foofu je ni Penc jàmbaar c'est une rivalité kenn mënu ko dindi man mënu ma ko dindi fa laa ko fekk te fa ko koy bàyyi mais encore une fois rek fexe ba. au finish, à la fin du match, que le fair play gagne. J'aimerais bien que la meilleure équipe, l'équipe qui jouera mieux, gagnera le match. Merci, coach. Ok, merci. Là. Ouais, nous sommes avec le capitaine, nous allons vous présenter. Comme nous l'avons dit, nous avons fait le terrain qui est ASC Lakale. Fait que nous avons fait ambiance, c'est extraordinaire. Nous avons fait aussi fait une ambiance, nous avons aussi amna. jël nañ capitaine nu ASC Penc am na lu mu wax ñu ngi ak aussi le capitaine de l'ASC Jambaar ñu bàyyi ko maa ngi lay ziar wér wér. maa nga présenté waaw man la Omar Mbengue euh, capitaine sum euh, euh, ngeen jëm ci benn match bi nga xam match leen naka ngeen di dundee match derby yéen ak Lakale. bon match derby la ah match la comme match yëpp ah mais aussi match spécial la aussi voilà dinañ ko joué nag comme ni ñu ko daan joué wala boog lu ko ëpp lu raw loolu dinañ ko joué noonu quoi voilà. donc nga ne match bu spécial la moo tax mu nekk match bu spécial. parce que ñun ak ñoom bon boo ko xoolee ci Barça Real la doo jub. moo raw Barça Real si ñun moo ñu gënal Barça Real fuuf. pourquoi haine boobu am si seen diggante yéen ak ñoom. non du haine de amul haine foofu suñu diggante ñoom amul benn haine parce que bu nawet daan jeexee ñooy bokkule mais bu bu bu bu défendre sa couleur jotee ku ci nekk da ngay défendre sa muy lakkale muy beneen équipe keneen ku mu mënti doon duñ nangu mukk mu ñuy defa mu ñuy minimiser ci benn côté. mais ñoom d'après li euh, pare nañ pour écraser leen maanaam moo écraser lañ tudd maanaam tey euh, samedi daal duñu leen bàyyil dara li nga xam tey moom mooy ngeen nooyu quoi yéen naka ngay dégg waaw dama leen bëgg wax leen rek mooy que nañ xam ne gaynde mer la fanaanoo nañ bàyyi loolu xel quoi gaynde mer la fanaanoo loolu la am lu ma leen sànni waaw taxawee ñu ne ñoom dañuy écraser ñoo wax lu leen neex voilà donc euh, gaynde mer la fanaanoo c'est-à-dire mooy ñoom li di xaar ci match bi dinañ jee match bu weex xat match bu weex xat match dom dinañ ko jee match bu weex xat te dinañ leen duma incha allah. xam nga ne ASC bi ngeen di jël. déggoo la ma la xanaa benn yoon la ma sama àdduna te du ñaar incha allah ci kàttanu yàlla dinaa ko dóor dóor yi métti dinaa am lu ko bett foofu samedi incha allah. lu leer laa la wax. ndax ngeen di bi donc ci côté mental. non bi rek xoolal supporter yi xoolal ñëpp a déterminé ñëpp a pare voilà. donc ban message nga leen bon ñu ñëw en masse bañ a benn violence parce que jàmbaar kenn xamee wu leen ci violence jàmbaar kenn xamee wu ci violence nañ ñëw en masse supporter seen équipe ci yar ak teeg comme nañ leen xamee woon suñu borom may ñu dam comme nam ñu daan mayee ndam loolu ni lance ñu ñëw en masse ñoom ñëpp. ñu ñëw ñu bëgg match te gënuñ ñoo bëgg match nañ ko xam suñ supporter yi gënuñ ñoo bëgg match ñun xeex la ba mu jeex tàkk voilà ñu ne seetaan leen ngeen gisee ñoom seetaanagu leen gisee exempté woon ñoom nee nañ supervisé na leen ci loolu non loolu juum bi may wax nag mu ngi foofu nag foofu lañ nar a juumee quoi la woon woon ni na dañ gisoon kere bu ñu yaakaar loolu mooy ñëw samedi de non kon dañ juum nañ torop sax bu garaaw bu garaaw changement bu mag la gis bu boobaa incha allah. ok merci. moom mooy euh, derby bi ñuy euh, commencé parce que gis ngeen euh, indi nañ seen i ci seen entraînement comme fële aussi penc bañ fa jugee gis nañ fa lu extraordinaire mobilisation bi ñu gis penc aussi moom lañ gis fii nga moom mooy ASC jàmbaar kon cela veut dugg nañ directement ci li nga moom mooy ambiance su bi ak importance bi nga moom mooy match bi war am fële samedi ci stade Amadou Barry à partir des représentants président supporters yi ñu waxtaan ak moom comme ni ñu ko waxtaanee ak supporteru ASC Penc ñoom am na lu ñu wax ñu bàyyi leen aussi ñoom aussi ñu waxtaan ak ci match bi nga xam te moom lañu jëm ñu ngi lay nu baax ñu bàyyi la nga présenté euh, ñu ngi leen ziar baax di di ziar waa Guédiawaye TV la je pense euh, ñu ngi leen ziar bu wér tamit maa fi représenté en tant que commission de supporters bu l'ASC Diambars quoi et digne dirigeant tamit quoi Adama Kandé Kandé ngeen jëm ci benn match bi nga xam te ni match bu importance la muy euh, seen derby yéen ak diggante ASC euh, Penc naka ngeen di waaj seen match boobu. Euh, match bi ñu ngi koy waaj comme les autres matchs quoi parce que ça a toujours été un match tamit comme les autres matchs mais match la tamit ci biir match yi maanaam bu si supporters yi bu ñu bëgg tamit ñu daje kook à chaque fois suñuy nawle ñoo xamante ni ñu ñu yab lool na mu leen defal lu nekk nag saa su ne defee nañ leen ko nu ne ci année di dajawaat ak ñoom ren rek daaw ñu am ci ñun rëpp xëy na mu may leen loo xamante ni ñu ngi koy waxtaanee ba tey mais yaakaar nañ day dañ ren tamit ñu waat nu ñu meloon ak ñoom rek fu ñu romb rek duma voilà ñoom ci seen biir wax démb bi ñu leen laajee ñoom nee nañ euh, jàmbaar équipe bu ndaw la léegi parce que boo xoolee si dix dernières années yi ñoom fi ñu yegg yéen yeggu leen fa la nga mën a wax si loolu ah bon loolu ñoom ñoo ko sañ a wax ci zone 3 ak bépp ci géejawaay rawatina ci Pikine bi ñu a vingt deux fois été champion ñoom ils ne l'ont pas été pour dix musuñu koo nekk pour dix fois alors que ñun vingt deux fois feete nañ suñu champion yu ñu fekkee ak yu ñu fekkewul jàmbaar au niveau national ñëpp xam nañ ko premier ASC boo xamante ni moom la njëkk a recevoir palais on n'a pas à le présenter jàmbaar nekkul ASC boo xamante ni dañ koy présenter diwaanu Pikine nag ci nawetaan mouvement nawetaanu àdduna loolu musul am li jàmbaar def. ASC musu ko def parce que ñoom na ngeen leen di dóor parce que nee na daa ngi leen dóor leen seen mam seen xale yi màgg nañ. on le verra cette année ci. nuñ dëkkee woon nag ñoom dañ koy tollanti rek liñ ci am daaw ab rëpp la te ren yaakaar nañ ni du amaat loolu lool du am loolu du am loolu du am loolu du am loolu du ñoom nee nañ à partir de midi dina leen fekk stade parce que ñoom délimité leen seen tribune bi nga xam moom lañ toog yéen est-ce que jàpp ngeen ban tribune lañ leen onze heures pare nañ pour dugg stade onze heures pare nañ booy engouement bu ñu jëlee match bi mosuñu koo jëlee match bu ren bi moo ñu gën a ñor yi ñu jot a fekke yëpp ndax ren ni ñu dund ak ñoom la ñoom nee nañ bu ngeen yéexee yéen ñoom place bi ñu jox dinañ ko occupé ba occupé yéen place bi ñu jox parce que ñoom li wax nii sax lañ ko waxee nee nañ cinq maisons la grand jàmbaar moo ëpp laqale jàmbaar ça a été quatre cent et quatre quelques maisons Lansar biir Lansar rek waxatuma la ak li jàmbaar wër kon loolu dee ko wax jàmbaar moom la ñëpp bëgg ci gàttal jàmbaar la ñëpp bëgg te ñëpp jàmbaar la ñuy teewal. ci kàttan yaa mobilisation nanga ngeen ko fas defee. boo yéen koy pare am nañ ay may te boo yéen ciy jënd par benn benn. dóor pour match ñun pour final la ñuy waajal laqale tax noo jóg du pour nawetaanu ren mais nawetaan yu topp ñun pare wuñ sax laqale final la ñuy pare incha allah te dama faa la disputé incha allah ban ASC la ñuy dajal moo ñu ëmp fu mu ne ni mais laqale dowut suñu kii mas boobu moom waxatuñ ci dara incha allah. waaw ku wax laqale aussi wax jàmbaar di nga xam ne mas derby la mas tension la yéen à part yéen seen côté ñoom ñaax nañ seen i supporters sur la non violence. yow aussi euh, boo amee message bi nga xam te yaa ngi ko koy lancé comme ni mu la ko lancé woon démb aussi yow ban message nga leen passé sur la non violence. ñaax suñuy supporters ci lañ dëkk. jàmbaar ku ko xam xamee wu ko ci violence jàmbaar amul daraay violence bañ na ko ba booy yi ko composé seen ku ci gën a am 30 doo du bëri. jàmbaar parce que ay ndaw rek ñoo ko composé bu ñuy daw ndaw ngay gis muy daw ci ginnaawam kon ñu ngi sóoraale ndaw ñooñ bu baax di leen woo tamit dans l' esprit de compétitivité nañ ko def ci esprit de fair play foo rek lañ ci dikkee ñun foo rek lañ ci dikkee nawetaan noonu la bindoo quoi ñu jàppee ko ci fair play ñu ngi leen di woo ci loolu lépp ndax la xale moom wax dëgg yàlla moom mooy loolu am na ay booy yaru mais tamit am na ñeneen ñoo xamante ni wax dëgg yàlla rek yàlla xam doy na mais ñun suñu boor dinañ indi leen ci yar ak teggin comme ni ñu xamee jàmbaar di ñaan yàlla nag mu defal ñu ndam incha allah te dinañ ko am bu soowee yàlla ci kaw loolu moo nekk message bi nga euh, xam euh, te euh, ni aussi mu nekk benn mas bi ñu wax rek mas bu am importance sa mas bi nga xam te nañ ko joué si cadre fair play parce que ñaari ASC yi mën nañ jàpp benn tali leen séparé ñoo bokk lépp si 90 000 la si terrain bu ñu paree ñoom ñooy àndaat nekkaat parce que am na ñu dëkk jàmbaar ñi ngi lakkale am ñu nekk lakkale ñi ngi jàmbaar donc mënul nekk la fin du monde dañ naan dajawaat ay dajawaat li ma ko waxoon démb waa pourquoi pas mën nañ dem nga xam te tey jàmbaar ak lakkale ñooy représenté li nga xam ne mooy géejawaay ci phase nationale yi nga xam mooy am l'année prochaine fii Dakar on sait jamais donc nañ ko joué ci fair play que la équipe gagne ma leen aussi que ni match bi euh, euh, samedi surtout yéen ñi nga nekk xam yéen nekk à l'étranger ngeen ko si nga Salam Vision